deuxième tour. xalaatoo leen deuxième mais mais koy xalaat quand même mais xalaatuñu ñu koy xalaat kay boo tax fi mu ne nii. yéen a koy xalaat. yéen benn benn adversaire ngeen am benn adversaire ngeen am fi mu ne moo leen xañ nelaw moo leen xañ a moo leen tee nelaw mais Amadou Ba moo tax bi ngeen am bu Bassirou génnee ak Diomaye ak Diomaye euh, ak Sonko rek ñu attaqué ko parce que xam na ni. Bassirou ak. Sonko. ma ni loolu moom moo tax yéen xam ngeen ne Amadou Ba mën na mën na leen mën na mën na faire mal. Amadou Ba ci élection yi moo tax. bu ngeen bi ñu génnee rek ñoom ñu xaalisam di corrompre di indi les vieilles habitudes politiques te moom moo jóge ci état ñoom ñuy ñëpp di taxawal Amadou Ba moo leen gën riche ah kooku nag foog ñu def ci moom ba tax na mënul tax mënuñu ko ragal xam lu tax Parcelles Assainies démb dama génn ci Kaba doon ko seeti. tase caravane Pastef mais caravane Pastef boobu kese Sonko ñëw fii Kaba nekku fa man sax maa ngi doon seeti caravane boobu rek. moo ëpp doole fuuf caravane Amadou baa ñëw ñu topp ci ginaaw d' accord tegal foofu sa loxo tegal foofu sa loxo euh, Moustapha ñëw ci attaque yi ñuy attaqué Diomaye Diomaye fay tamit parce que am na ñoo xam ne si nii ñu ngi koy attaqué surtout sur le plan euh, communicationnel ak euh, li nga xamante ni tamit ñu ngi koy wax ñu ne c' est des stagiaires ah. Mm-hmm. stagiaire kenn du ko jox am réew. gis loolu loolu ñu wax noonu. Abdou juuf Abdou euh, Ousmane Tanor Dieng bi ñuy investir Abdou juuf mm-hmm. en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit boobu ñu ngi doon waaj élection deux mille yi. Mm-hmm. dafa toog mu ne dëkk bi dafa soxla ay main experte. Mm-hmm. yu sûr et qui rassure. duñ ko jox Abdoulaye Wade mi nga xamante xamul état. mosul xam état doon wax. donc cest à discours la boo xam ne yàgg nañ koo lancé koo xam ne yëg. booy yëg képp ki yëg fii loolu ngay dégg. ki toog day gëm ne moom moo am expérience moom moo xam état buñ fi dénkee koo xamante mosul yor état da ko dénk kiy jàng. te gis nañ lañ doon waxal Abdoulaye Wade ba mu ñëwee est-ce fi mieux que les socialistes na mieux que les réew mi dafa xamagul mais ak lépp lu mën tam parce que dañoo am benn peuple bu exigeant boo xamante ne képp ku fi ñëw duñ toog di la seetaan. Mhm. donc ñi ñëw ma forcément changement dafay am. li nga wax ne attaques yi ñu koy attaqué Diomaye xam nga nit ki bu fekkente ne attaque personnelle ngay def ça veut dire que amoo argument <laughs> dañ naan les excellents. c'est discute d'idées les moyens discute de principe les médiocres discute de personne. su ma demee ba taxaw naan Mahfouz mi. sikkima bi moo tax neexuma c'est parce que je la mm. c'est parce que médiocre la mais su ma doon excellent wala may ku ku am tuuti ah. xam-xam damay toog ma ne Mahfouss mi raisonnement am baaxul parce que raisonnement am toujours dafa marxiste wala raisonnement am dafa évolutionniste wala raisonnement dafa nangam d'accord ci raisonnement ba baaxul c'est un raisonnement importé mm-hmm. ñu ne ah kii kat mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi damate Mahfouss si xam-xam gis nga amoon na fi ay jamono euh, débat ñoom euh, Souleymane Bachir Diam Souleymane Bachir Diagne ak yeneen intellectuels yi nga xamante ne dañ doon paasante bal bi di def euh, benn ping pong ak ñoom Mame Moussa Diagne si jeune Mabuse Pa def ay ping pong af entre contribution contribution mais c'était tellement enrichissant ba ñëpp si jàngee woon mais est-ce que dañoo taxawoon naan kenn dafa bind rek kenn ki ñëw tontu ko ne ko non yow du ma la tontu parce que sa boobu yëpp daa weex. kenn que da ngaa sew kenn ki loolu mooy wane ne ñi mu jàkkaarloo amuñu argument. Mhm. côté communication bi ngay waxee ni mais nañ ci wax Amadou Ba communicant la c'est un Ba communicant la nañ ci wax Amadou Ba c'est un communicant ah Amadou Ba c'est un communicant xanaa tey la Amadou Ba ne communicant ah, nañ ci wax. c'est un piètre communicant du communicant. képp ku jàng communication jàng art oratoire xam nga ne Amadou Ba amul daraay communicant amu ko. Mhm. noonu nu ko mën a waxee Amadou Ba noonu la ñu ko mën a waxee beneen ak beneen ak beneen ak beneen beneen candidat c'est comme dañu nekk ci campagne électorale ku nekk da ngay xool fi nga xam ne mën nga fa laal sa morom mu sombre nga koy laal. Mhm. mais taxaw fii di wax ay affaire communicant wala yow da ngaa mën art oratoire damay déplorer attaque personnel yi. Mhm. parce que gis nga communication dafa am bu fekkente ne dañ lay dañ dañ dañ lay coacher dafa am ñetti V yu lay wax. Mhm. mooy verticalité bi nit ki bu taxawee am voix bi am visage bi. am na yoo xamante ne da nga koy améliorer avec le temps. am na yoo xam ne da nga koy améliorer avec le temps nit ki mën na taxaw gestuel am baaxul nga dimbali ko ci gestuel bi baaxul mmh. verticalité bi baaxul bu taxawee toogaay beeg yooyu baaxul nga dimbali ko ci mmh. voix am normalul nga dimbali ko ci mu normal mais am na yoo xam ne da ngay ñëw ak moom léegi loolu nag da koy accompagner xool naka nga koy rendre mu gën a nit ñi di ko gën a gis mu gën a mmh. normal mais nit ki mënul ñëw génn rek nga bëgg ko dugal ci yenn gamm yoo xamante ne je pense que du du dul normal mën nga critiquer nit nag mën nga critiquer nit mais pas nga dem ba bëgg dugg ci biir nit ki dugg ci loo xamante ne ça ne se fait pas dafay dem ba dafa refléter complexe parce que pour man du foofu ki ñuy tabb li ñaari yi la ñu soxla ci man pour man dama ko yàgg di wax mm-hmm. mooy courage ak vision mm-hmm. courage bi mooy di nga jàkkaarloo ku ne di nga jàkkaarloo occidentaux yi di nga lobby bu nekk di nga kooku bu amul courage sa dëkk da koy sombreloo il faut mu am vision jëlee dëkk bi point A yóbbu ko point B ñu xam ne kii am na loolu boo ko amee si nit ki ak lu lu leneen lu ñu ci mën a laaj mën na dem maintenant bu ñëwee ci profit yeeg yoon yoon rek yoon noonu loolu pour man si campagne bi ñu nekk moo tax ñu koy jéem a animer pour jéem a déstabiliser li mais je pense que c'est loo xamante ne la peine perdue la. Mmh. parce que xam nga lu tax may la peine perdue la. dañu gis ne euh, genre élection euh, locale yi dafa dafa dafa joxe signal bi entre Abdoulaye Diouf Sall ak Barthélémy Diaz lu ñu doon wax. Bart musul gérer mun na dinañ ko dénk ay milliards Bart amul expérience amul nii duñ ko def nii gis nga dakaa dóor ba wër leen di leen waraat di leen dóor. Mhm. te le la le même cas risque de reproduire. Mhm. lu ne Bart dégg na ko fi. dafa saaga daa génne fital ñu génne ko vidéo mag Ndiaga Diouf fi lu nekk ñu dugg ci. le maire de Yoff la. Mhm. lu ne Issa Laye Samb Issa Laye Samb. Issa Laye Samb bu ñu teg ko di ko comparé ak Abdoulaye Diouf Sarr. teg ñaari photo naan xoolee ñi kii kii mën naa jiite réew. Sénégalais yi fi ñu toll nii li ñu rawee politiciens yi dafa bari. dañu toog di seetaan rek. nga jàpp candidat jàmbu noo dugal photo reetaan def ni ñi voté ñi ngi voté toog di seetaan rek mhm. parce que dafa am loo xamante ne tey jii c'est pas parce que man gëw ma ne naan noo nit ki nii non non man xam-xam laa gëm mhm. man dakay am xam-xam man naw la ci mhm. euh, boo amul xam-xam nag ak noo munti mel amul benn sens te gis nga loolu noonu daf ñu yàgg dugal ci erreur ak yu ni mel maanaam euh, sénégalais nag apparence daf ko yàgg yàgg lor tey jii même boo xamul dara amoo dara yow amal cartable bu rafet sol ay daalu cher rek yëre bu taxaw parfum bu neex laal costume ak ak ak oto bu baax rek boo ñëwee taxaw comme sa cravate bi nii <laughs> waaye teguma ci costume rek say verre ah. waaye teguma ci costume <laughs> su ma si tegoon costume ñu wax waaye teguma ci costume ah. yaa ngi laal de ñu <laughs> ah. ngay laal waaye teguma ci costume bàyyi ko day ruube ak doxalal gis nga nga gis nga gis ne euh, loolu souvent daf daf daf leen nax mais li li ëpp solo li gën a am am njëriñ mooy ñi seet nit ki candidat bi lan moo laxatu ci ginnaawam. je pense que su fekkente nit ki nga xamante ne da koy attaqué te yow mi koy attaqué xam nga ne bu ngeen toogee mu ray la ci xam-xam wala ci waxtaan rek amatul sens. fii ñaata ñoo fi def concours ENA euh, échoué que cinq fois dix fois ñaata Mahfouz. néew na étudiant wala journaliste boo toogal mu ne testé moom benn yoon ne serait-ce que benn concours ENA ñaata. Mm. concours magistrature ñaata ñoo ko def fi amuñu ko moom mu def ko réussir ndoo ñaar yëpp. dem fële di liggéey euh, impôt domaine kenn xamu ko ci yenn yeeg def liggéeyam normalement. Mhm. waaw léegi kooku tey jii yow nga gis koo xamante ni mu ngi toog bac def na ko ñaari yoon dem cartouche taxaw naan waa ji ko dénk sama réew. Mhm. parce que da day day jàng. Mhm. mais est-ce que est mais ban dëkk la ñu nekk kon yow ki ngay critiquer mën na laa jàngal mën naa jàngal seen famille ba mu jeex. waaw léegi nga taxaw naa non du ma ko du ma ko dëgg mais nañ taxaw ci candidat yi tey ji mm-hmm. profilum bi ñu nekk di critiquer yan candidat ñoo fa toll foofu nañ génnee CV ñu teg ñu xool mm-hmm. am na ñoo xamante ne seen expérience mooy loolu tolluwul nen je pense que affaire bi pour man ni ma ko ni ma ko yàgg waxee rek comme ni ko Alain Perfi doon waxee ci euh, les cheveux de Lac Lac d'Aguiar mu ne indépendance de la justice affaire d'homme et d'éducation la mais fii tamit pour man affaire yu réew mm-hmm. du question ni euh, question nit ki nii la toll wala nii la mel ak nee la nii nii non non pour man question de vision la et de courage. boo amee vision am courage rek man mën nañ laa dénk sama réew pour man am am am tamit surtout c' important dama koy fàtte am njub bi. Mhm. parce que boo dénkee sàcc tamit sa réew du dem fenn. Mhm. Kébé <laughs> man xam nga euh, man man ay ay questions yu simple rek laay poser en fait. mais li nga wax ni c' est valable pour pour pour euh, la classe politique parce que Amadou Ba aussi on est euh, victime parce que doon nañu ko fexe du jul de baak ay du du sénégalais <laughs> ba soog ko sax ñëw ne ne noonu la ñu bàyyi loolu wax nañu ay foofu ñu Séné Sénégalais la Sénégalais la fii la jàngee liggéey na fi donc tamit il faut classe politique bi yëpp la ñuy wax la li nga wax nii c'est pour pour pour. pour la classe politique ah. mais mais Mahfouz xam nga yan question la ñu war a laaj. Mhm. la ñu war a poser en fait. ndax tey jii ñëw tenir de bon discours mën nañu génnee ñun ci ci mhm. ndax tey jii ñëw. Euh, solu costume cravate mën na génne Sénégalais yi eh, ci mbënd mi ñu nekk campagne tamit. ah mais mais mais voilà mais Sénégalais yi aussi tamit ñoom ñoo war a yeewu mais euh, Sénégalais ñoom ñoo ah. war a yeewu kan yi. Hmm. fi fi ñu bëgg a dugal affaire bi du foofu en fait. Hmm. bu doon tenir de bon discours rek mais Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi président Wade jaar na fi. Hmm. pourtant sénégalais ñi ngi jooy li nga xam ne moom la ñu doon moom la ñu doon jooy ba léegi xam nga li fi am mooy complexé mm-hmm. c'est parce que Bassirou Diomaye Faye ba tey muy garde intact toutes ses identités yoo xam ne en tout cas mooy tax ñu mën a xàmmee que ni kii nii ca kaw la jógee mm-hmm. tey ñun sénégalais lu ñu miin mooy euh, am un président boo xam ni xëy na dafa yeewoo Almadi wala mu yeewoo Ngor wala mu yeewoo ci kër goo xam ni euh, dafay am ascenseur et tout mais tey boo xoolee la personne de Bassirou Diomaye fay mais da tey boo nekkee villageois tey ji nga dëkk ca kaw ko mais da nga ci gis sa bopp léegi nag ñi nga xam ne ay complexe la ñu tey dëkk fii nii bëgguñu xëy na euh, nga xam ni ñoom boo boo leen bëggee fekk fi ñu dëkk sax bëgg a def ak ñoom interview il faut que ñu am ñu ñu defaraat kii kii ñooñu tey wu mel ni. Mm. Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne mu amul daray complexe ci. wane identité am amul daray complexe ci ni man fii laa jóge fii laa bawoo. Mm. lii rek moom mooy problème bi mais bu fekkente ni tey jii dañu nekk ci Sénégal boo xamante ni si nii en tout cas léegi dañu bëgg a jël compétence. Mm-hmm. bu ko remplacer ak euh, loo xam maanaam ci loo xam ci apparence kese la yam mooy kii ndax ni muy soloo ni muy costume ni muy takk cravate bi fii ni muy waxee son discours et la alors que loolu mënul régler jafe-jafe gis nga. mbir mi mi ngi ci man mën ak capacité te Bassirou mm-hmm. Diomaye Diakhar fay sànq Moussa mi ngi koy wax mais koo xam ni danga tegale tegalee en tout cas réussir réussir ñaari concours mm-hmm. muy ENAM ak ak ak magistrature mais kooku noonu euh, ak ba pare dem def presque pendant 15 ans xam nga 17 ans biir impôt def fa liggéey boo xam ni ñi ko xam ñëpp dañu dañ ko seede kan liggéey bu mucc ayib la. Mhm. mais loolu lañ fi nekk di bëgg a leneen parce que parce que xëy na euh, comme ni nga ko waxee dañ toll ci boo xam ni. kenn mhm. ku ci nekk wala yaay da ngay jéem a xool naka ngay déstabiliser sa sa sa morom mais naka ngay xool aussi tamit ba jéem a def xëy na lavage de cerveau ci yenn Sénégalais yi bu ko defee euh, dugal yow complexe gi nekk ci ci yow nga dugal ko ci ñoom parce que euh, pour dem leen a détourner mais loolu yaakaar naa ni Sénégalais yi tey dépassé foofu noonu moo tax sénégalais yi fi mu ne nii euh, dañu raw ñun la classe politique dañu leen dépassé lu bare bari te ñoom sax yëguñu ko mm-hmm. loolu daf leen di problème bu baax a baax mais sénégalais yi ni ñuy voté jamono ji mahfous mm-hmm. mooy koo xam ni kan moo am programme bu baax kan moo am euh, capacité bi ak mën-mën bi mais ay naan kii mësa yor nguur rek mësa jaar fii yooyu noonu sénégalais yi parce que dañu ci dañ ci mos mosati ci mm-hmm. sénégalais yi ñoo bëgg changement en fait dañoo bëgg a gis leneen d'accord Kébé Birame Khoudia ma ñëwaat ci ma ñëwaat ci yow par Euh, Ousmane Sonko ak euh, sortem euh, ci wàllum prison nga dox ci lu bari ci wàllum négociation ci wàllum maanaam médiation jëm ci chef religieux yi les xalif dox nga ci lu bari toog nga fii nga ni dem nga ci Canaba dem nga tuubaa dem nga Tiwaawoon dem nga Kaolack mais dañu gis Ousmane Sonko mu génn demu seeti sëriñ si <coughs> waxul seen wax. même sortie bi mu def sax bi muy soog a génn prison kenn dégg ko mu wax ci ci ci loolu sant gërëm na euh, chef religieux ki mel noonu xalif généraux yi demu leen seet leen lan moo xew lan moo ko expliquer cette attitude. waaw euh, d' abord je crois que bi mu génnee dafa sant Sénégalais yëpp wala sant leen bu santee Sénégalais yëpp ku mel na xalif généraux yi génn ci biir Sénégalais yi benn ñaareel ba tey. euh, ce n'est pas encore tard je suis sûr et presque certain que dina dem ku nekk fa ma jaaroon mu jaar fa seet leen mhm. parce que loolu ba ñu koy def moom mu ngi koy yëg di ko gis man bu ma jógee dem ci chef religieux mais du euh, du biram ko jël moo fa dem Ousmane Sonko moo fa dem parce que moom laa demoon di doxali donc c'est extrêmement important le respect bi mu jox chef religieux yi loolu day yokku waaye du wàññeeku ba pare bul fàtte ni dafay dégganteeg ñoom ñëpp c'est extrêmement important maintenant le fait d'exposer te bi ñu leen bàyyee euh, booba ñaata la fan la gaañ a def départ ñu tënk leen ñoom. ñu ngi ci biir campagne. c'est ça le problème mooy dañu départ lu yàgg ñoom ñu tënk leen ñu ngi mel na ay nit ñu nga xam ne dañu war a départ ay course ñii départ ba fële ñii soog a départ xam nga loolu baaxul. bu ko defee day siffler ni fausse départ mais loolu yëpp siffler wuñ ko heureusement que ñun bi ñu départ ñaari fan la ñu def raw leen ay jéego yu raw yu yu bëri donc loolu moo doon objectif bi donc peut-être que euh, mi ngi déggante ñoom comme convenablement ça j'en suis presque certain parce que xam naa principe ak valeur Ousmane euh, Ousmane Sonko ñu ngi leen di gërëm di leen sant quand je le dis je le dis au nom de Ousmane Sonko sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg déwén ba ma demee mm-hmm. Ousmane def na li mu war a def na dem toog bu mu grève de la faim bu mu def dara li ci kanam rayu li bët kon tey bu ñu demee ba mu génn ça veut dire que la ma waxoon je le comprends am na ñeneen ñoo nga xam ni également muy sëñ cene ba muy euh, ki nekk euh, Kaolack nga xam ni def na fi sortie bu am importance aussi pour rappeler président Macky Sall euh, à la raison mooy ki nekk Medina Léona Niassène Léona Niassène ki nekk Léona Niassène te waxoon nañu ko nee na woon fi mu waree a waxee bu gàmm gi jotee dina wax te wax na donc ñooñu dañ leen di gërëm di leen sant au nom de Pastef au nom de Ousmane Sonko ñun ñu ngi dégganteeg ñoom ku dégg ba ci suba ngoon donc je crois que Ousmane bu paree ci li muy def dina fa dem dina leen ziar comme d'habitude parce que moom loolu kenn mun ko ci génne muy moom muy jomaay muy ñëpp donc Pastef et avec le chefs religieux ñoom ñëpp ñu ngi dégg maa ngi nuyu sëñ Bass en passant. sëñ Bass Dieng nga xam ni moom moo nekk bëgg nekku bëgg neegu sëñ Mountakha dafay dafa nekk alors ñoo ñëpp dañuy dégg seen xibaar donc sur ce plan là c'est ça maintenant je voudrais continuer ci affaire Bassirou Diomaye Faye bi ngay wax mm-hmm. euh, Bassirou Diomaye Faye man man Birame Khoudia mm-hmm. kenn si ñoom candidat yi fi dégg Idrissa Seck tout le nañ bokk plateau kenn ci ñoom daa ko ma wax bu dee wax rek la mm-hmm. kenn ci moom ëpp ma argument mais moi je reconnais que toog naa ci bureau nii ñu toogee Bassirou Diomaye Faye toog sa place ay toog kële toog ma toog ñu war a recevoir ay délégation mais ñun ñëpp bu ñu waxee suñu wax ba tënk ko Bassirou bu jógee fa muy génne tu sais que il est extrêmement intelligent ndax dafay bàyyi fi ñu génne ñëpp génne feneen te foofu day tegu ci yoon ba ñi toogoon ñu leen di recevoir sax dañuy yéemu booba laa ni est kii du nekk suñu candidat parce que booba ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi gundu xataal Ousmane Sonko ma gis koo xam ne et puis ñun ñëpp moo ñu gën a dal. Mhm. te lii yore réew mooy dal teel teel yi yorul réew. Mhm. président Macky Sall mi dañ doon wax ni mënul wax. Mhm. jour bi mu jëkkee wax defe naa Wade dafa ne ah waa waa waa cadre yi léegi commencé nañu wax mais il parlait pas président Macky Sall mi ban ban mën wax la am fi wax boo xam ne ay toj-toj rek ngay def loolu aussi mooy problème wax day ànd ak dal wax day ànd ak euh, intelligence looy wax da ko war a xam moom bala muy mën a génne li nga xam ni moom nga koy nawe mooy ngeen toog plateau muy génne argument mais li mu mënewul mooy ay xastanteeg attaque personnelle loolu mënewu ko parce que yaruñu ko ki ci même li mu ciy waxas néew kenn yaru ko ci moom li ñu ko yar mooy dal ak xam-xam wax nga léegi bu def ñaari concours man mii def naa ENAM jële l'ai fait trois à trois reprises deux yi def naa laa jàll dem ba euh, fii nu mu tëddee. entretien entretien ñu téemu te entretien aussi kenn mu fexe ba mën a renier li ma xam. Mm. affaire caaxaan yi ñu nekk ma nekkuma ci. Mm. loolu c'est sûr et certain kon Bassirou Diomaye c'est quelqu'un ki est euh, présider à la destinée de ce pays et efficacement parce que wax nga ka jub moo ëpp solo lépp. Mm. te foofu la leen demee le pion ñun waxuñu ni moo fi ëpp xam-xam de on l'a pas mhm. mais moo leen gën a jub cest à ñi ma fi gis jëpp koo ci dénkoon dara tey.